kon yàllaa ngi xamal yonantu bi rek dëkk naa fekk dafa métti mu ne ko gis nga jëddum nu xay si mi ñëw naan digal ma ma toog damaa amee feebaru jigéen damay bañ dem leen di siif seen jigéen ña fitna googu laa bëgg ba nga tàbbi yàlla ne tàbbi na ci fitna allah fil fitnati saqatu am na ñu jàng sax saqata mu ne nag moo tax kat fitna ba mooy safara rek wa inna jahannama la muhiitatun bil kaafiriin ñoom nag bon nañ bon ko day ni lu la jot ci xéewal leen di lu la jot ci musiba mu neex leen in tusibka xasanatun tasuhum sa noon pire soo dolleekoo ci xéewal rek mu dolleeku ci naqar nga dolleeku ci nattu ak musiba mu dolleeku ci bànneex loolu mooy noon pire yàlla nag tofal ke ne wax leen ne leen lu ma jot yàllaa ko dogal te lu yàlla dogal man gërëm naa ko ñun nag yéen de mu ngeen di ku leen ci lu dul ñaar ya gën a rafet maanaam xusna yéeni mooy taniis maanaam tasniyatu xusna te ëllis ba nag góor ga mooy ahsan la gën a rafet afaala taf ji la ca góor nga ne ahsan bu bu jigéen ga nga ne xusna su ko defee kon nag te ëllis ba xusna lay doon tafkiir ba nekk maanaam ahsan yéen de ñaar rek ngeen mën a dugg ci ñun mooy benn ñuy dem xare ji gañe wala ñu dee ca ñun nag la ñun ñëndiku ci yéen mooy yàlla mbugal leen directement mbaa mu mbugal leen mbaa mu mbugalee leen suñu loxo yi fa tarabbasu bikum an yusibakum allahu bi azabin indihi aw bi aydina fa tarabbasu inna maakum mutarabbisuuna mu ne na kon nag dundale leen seen alal ji topp yàlla benn ci force mbànk coobare man ta ñàkk waaye bu ngeen dundee tamit yàlla du ko nangu ndax ay nit ñu bon ngeen gëm gëmu leen yàlla ku gëmul yàlla euh, lu mu joxe ci alalam yàlla du ko nangu kon nag lii lépp dafay wane yahuud yi xiir gu xiir ci alal kenn mun leen a joxe tax a joxe alal ba mu ca bàyyeekoo loolu nag mi seen seen nifaaq ga suñu dajee yow gëñ ne yow lañ xànd ak yàlla ne man mi xam li xew xànduñoo yow nit lañ ñoo xam ne dañoo tàppet wallaahi bu xaree déclenché buñ gisoon xunt yu mën a dugg dugg ca suñ mënoon a xam fuñ nëbbatu nëbbatu ca ñu ragal dee lañ te ñu ci xalal lañ moo tax mu ne wa yaxlifuuna danañu gëñ billaay ci yàlla ne innahum naka ñoom la minkum ci yéen lañ bokk yéen jullit ñi yàlla ne wa maa hum déet ñoom minkum ñi bokk ci yéen de walakinnahum li fi nekk ñoom xaw mu nit la ñoo xam ne yafraquuna dañoo xuttu dañuy xuttu mooy ragal ragal bu jege dañoo xuttu law yajiduuna doon te fekkoon nañ malja an wéeru waaye buñ mën a wéeru ñu wéeru dem ca aw maxaaraatin wala ay xuntu suñ ko mënoon ñu dugg ca aw muddaxalan wala tàbbiwaay suñ ko amoon tamit la wallaw ñu dëddu lay jëm ca moom mu fekk mbir moomu ñoom yéeg ma woon a way màmm lañ mooy way gaaw lañ ña ngi koy def ànd ak maanaam ña nga ña nga màmm ña ngay gaaw wa minhum am na ca ñu munaafiquuna na man koo xam ne yelmisuka dana ayibal la fi sadaqaati ci sarax yi ngay joxe fa in utoo ndeem joxeef na minha ca sarax ya raddoo ñu gërëm wa in lam yutaw ndeem joxeeful leen minha ca sarax ya isa ci mbetteel hum ñoom yasqatuna ña ngay sànji walaw annahum dontu naka ñoom raddoo gërëmoon nañ maa aataahum la nga xam ne jox na ko laahu yàlla wa rasuulahu yonent bi ci ay màng wa ñu ne bu hasbunaa doy nañu laahu yàlla sa yuutinaa dana jox ñu laahu yàlla min fadli ci ngëneel wa rasuulahu kon de innaa naka ñun raaxibuuna way xemem lañ ilallaahi jëm ci yàlla bu ñu defoon lii mu nekk lu gën ci ñoom mu xasaf ko kon dafa am ci ñoom ñoo xam ne ndeysaanam bu yonent bi di joxe moo doon ku ñuy wax jawaar ba yonent bi jëlee asaka ya di ko joxe mu taxaw ne xay xoolal kii waaye jël seen alal yi dajale ko di ko jox sàmm yi ay sàmm la koy jox jàllar bi ko di wax ne la muy atte lu maandu la moo tax yàlla waminu ma yel misuna fi sadaqaati te ànd ak loolu kat boo ko joxee mu jël te bu jëlee dootul waxati dara su amul nag booy jox nga teggi ko rek nag mu mu daas làmmiñam wu ñaaw wa lii nag fa mel ni ci kër yi dafa mel ni ci kër sëriñ yi wala ci politique la wàcc tey dana bëri taalibe bu toppam sëriñ bu ko bu ko sëriñ bi mu xaddamalee mbaa mu yëkkati ab cër jox ko ko rek mu tagg sëriñ baa fi gën bu sëriñ bi séddalee joxut ko nag mu xas sëriñ bi mu mën naa def sax transiment dem seeti beneen sëriñ lu yàqu rek ñuy transi ni transiment amee ci politique bi ñu la amee ci kër sëriñ yi ñooñu nag lu yàquñoo ko indi te itamit da nga gis ko toppam nit sonn parti bi coow la bëri boo ko takkee ndomba tànk mu tagg la soppeeku sab géwél bis boo tekkee ndomba tànk ga mu commencé taxaw di di di la xas di wax lu bon ci yow te lu bon loola yéen a bokk nekk ca kon ñii fu ñu jëm gëmuñ dara xalal dong ak dund dong lañ gëm te loolu moo bëri kon jikkooy yëhut dafa bokk ci ñoom boo leen joxee ñi tagg boo leen xañee ñi xalab loolu tamit jikko la ju bon joo xam ne jullit ñu bëri sàcc nañ ko ci ñoom di ko jikkoo na ci seen jikko tàppet ragal tamit ragal dee bëgg seen dund la yawaddu ahadun law yu'ammaru alfa sanatin waaye tamit loolu jikkooy jullit ñu bëree bari bari la xuttu lool bëgg dundu lool bëgg fee des lool lu tax tamit nga dee loolu kon nañ ci bàyyi xel amul njëriñ euh, loo fi yàgg-yàgg bis bu dee ñëwee fay mel ni mosoo fee nekk yonentu yàlla noo mi fi yàggoon bi ñu ko laajee àdduna ak moom nu mel mu ne fa mel ni néeg moo xam ñaari bunt ma jaar ca bu njëkk ba génne ca morom ma nga xam ne nu bóotoom nga rek junnee at la fa labisa fihim alfa sanatin illaa xamsiina aaman xamsiina aam jooju mu setti mooy at yu neex yam dund ca nitam ña rek waaye du nu bóotoom nga rek junnee at la léegi nag mi ngi wax sarax yi ñi ko moom indi baatab inna ma ñaari xaraf la inna ak ma inna dafa ñëw di kiital di saxal maa ñëw di dàq ñoom ñaar boo leen boolee xasru la ci balaaxa muy tekki ne sarax yi juróom-ñett ñi ma tudd rekk ñoo ko moom bu leen ca dugal ku ca bokkut bu leen ca génnee ku ca bokk moo tax mu mu tàmbalee ko yàlla xasru ko ci inna ma sarax yi ñii la kenn du bu ca dollee kooti kenn bu mu ca wàññee moo tax mu ne inna ma sadaqaatu ndaal asaka yi lil fuqaraa yi aji nekk la ñeexal ñu ñàkk ñi mooy ñoo xam ne xamuñ dara buñ yalwaanu duñ dund wal masaakiin yi ak miskiin yi mooy ñoo xam ne xam nañ waaye lañ xam doyut leen wala aamilina ak woy liggéey ña xaleyaa ca asakaya luñ bëri la bëri la nañ leen jox muy jaraaf ya wal mu allafati ak ku ñuy tàpp xuloobuhum seen xol ya moo xam jébbalu nañ wala jébbalooguñ jébbalu nañ mu ne nañ leen jox pour ñu sax wala jébbalooguñ te ku leen jox mën nañoo jébbalu wala dañoo xam sax seeni ndend ca yéeféer ya ñu leen di jox ñu ne kon ñun tamit nañ leen jox téye leen ko wala sax seen làmmeñ a ñaaw ñu ne ku leen jox ñi tagg lislaam ku leen joxut ñi xaste nañ leen jox ngir mukki seen làmmeñ wu ñaaw wa wa fi bi danañ ko joxe tamit ci xob bi ku ñu ku ñu jàpp jar-jar te mooy ku ñuy xob bi koo xam ne dafay njotoo wal xaarimina ak way boruña ñu boruña tamit euh, te boruñu woon ngir yàq ba tagga témbe dañ leen jox asaka fayal leen seeni bor wa fii sabilillahi ak ci jihaad ci yoonu yàlla moom rek la ko Malick firee wabni sabili ak doomi yoon dañ ko ca jox mooy ku tukki taga témbe amul lu ko indi donte fa mu bàyyee koo xam na fa alal waaye mënu caa jot te xamul ko ko lebal lii nag faridatan muy farataag faridatan muy dogalam yàlla boo xam dogal na ko mi ne muy dogal boo xam ne mi ne laay na ci yàlla alimun xamaa kon la mbindeefam yi xakimun ku xereñale tamit ci njëfteefam ba tax na ñii rek lañ war a jox te ñii ku leen bu mali buñ ko firee nga xam ne ñii xëyoon nañ ku leen jox faqir moom la alquran njëkk a tudd mooy koo xam ne amul daara bu yalwaanu rekk du dund faqir faqru lu métti la yonent bi daana muslu yàlla ci ñàkk xamoon na ñaan yu doon ñaan bu xëyee ak ñaan yu doon ñaan balaa tëdd yooya bokkoon na ci ñaan yàlla musal ko ci ñàkk muy faqru waaye miskin nag mooy koo xam ne xam na waaye li mu xam doyut ko mën naa xamee taas xamee xamee ay ay jabar xamee tamit ay meuble mbaa moo sax ay 4 x waaye terewut fa euh, maanaam miskin la dégg nga de mooy koo xam ne la ma am doyu ko kooku mooy mooy mooy mooy kon mooy mooy mooy safaan ba kon mooy faqir bi miskin bi mooy ko amul dara waaye loolu ma waxal tamit Maalik ak Saafi yu dañ cee wutee Saafi yu dafa gëm ne faqir mooy ko amul dara comme ni ma la ko njëkk waxee miskin mooy koo xam ne xam na waaye la lam xam doyu ko Maalik ne déedéet miskin mooy ko amul dara faqir mooy koo xam ne xam na waaye la lam xam doyu ko noonu la ko Malick déggee kon seen diggante duñ benn kii dafa jàppee ni faqir mooy koo xam ne bu yalwaanu du dund moom la miskin mooy koo xam ne mën naa dund saa mu yalwaan saafi yu nag wax ne miskin mooy koo xam ne am na waaye lam am doy ko mu tegtaloo ko amma safinatu fa kaanat li masakina li masakina yaamaluna fil baxri kon ñooñu am nañ gaal gaal xa la koy jënd ay millions léegi gaal ga tamit am na lu lum leen liggéeyal ñu koy jur mu ne kon moom la wala fi alquran waxeen aw miskinan daa matrabatin kon loolu la kon loolu la saafe yu jàppee miskin bu ñoom ñaar nag buñ dajee boo ko seetee faqiir mooy ki gën a xaajoo waaye miskin lañuy jiital ndax faqiir ak miskin la su ko defee kon nag noonu moo gis-gisu Malik loolu moo ngi gis yu saafe yu bi nag moom mosta dañ di muslu yàlla ci faqru ku ragaloon ñàkk la waaye nag mosta dañ mosta dañ di ñaan yàlla def ko miskin dafa ne yàlla yàlla nga ma dundal may miskin waaw na yàlla dund yàlla def ko muy miskin dundam miskin dafa neex mooy tay nga am rek ëllëg doo xam te loolu dafa lay gën a delloo ci yàlla loolu baax na di dégg kon loolu mooy faqiir ak miskin ci dégg-dégginu Malik ak Saafiyu léegi nag amilina mooy ñëw liggéey ci ci asaka ja ñoom luñ bari bari la dañ leen jox ndax xaalis dafa xeeñ ku koy séddale da nga cay bëgg moo tax amil bi bu nekkee di faqiir mbaa mu nekk di miskin mën naa jàpp ñaari yoon loolu la xalil wax mën naa taxaw ne jox leen ma ñu ne lan nga mu ne faqiir laa mbaa miskin laa ba mu bari na joxaat leen ma ñu ne ko lu tax mu ne amil laa mu àll fa quloob ñeenti xaaj la. ku dugg bees ci lislaam nañ ko jox ngir tàpp xolam mu gën a dëgër xam ne lislaam diine dimbalante la jullit ñëpp ñooy mbokkam ku dugg gu tëkk ko jox dara dugg nañ ko jox koo xamee ne nii dafa am ay moromam yu ñuy jox foofa ñu ne na ko tim ko jox koo xamee làmmiñam a ñaaw ku ko jox mu tagg ku ko joxut du tagg nañ ko jox waaye ñaar ñëpp nag dañ nañ moo tax yonentu daana jox nii Aboubacar di leen jox bi Omar mu Xataab toogee ñu defar délégation ñoom ñu duggagut ñu jox ñu ñu doon du fa ñu daan jox Aboubacar mu ne déedéet lislaam léegi xoomal na wadis leen bu ngeen mënee ñëw bu ngeen mënut baax lislaam ji xam na doole. riqaab mooy koo xam ne tey jaam la ñu jël ci alali asaka ji jënd ko ci pour mu njotu wala da doon sax mu am lu mu desee ko ci jël ci alali asaka ji fayal ko ca mu nekk gor xaari mii na mooy ñu boru boru jënd pour ab dépense wala kër goo dëkk wala yëre yoo sol amoo loo fayee nañ seetlu tolloog sa bor ba ñu fayal la ko ci asaka ji fi sabilillaahi nag ci Malik mooy kuy jihaad buy saafiru nag projet lislaam yëpp daara mën nañ ko jox asaka jumaa jàkka hôpital yoon waaye buy Malik nag moom kuy jihaad rekk la ibnu sabil mooy ku takk ku tukku tagga témbe xamul lu ko indi donte am nay xalal ci xalal dëkk ba mu baax te xamul ku ko lebal des na ko jox asaka ba mën a xegg fa mu jëm juróom-ñett ñii nag dëgg dëgg dëgg ko xam ne kon lislaam tamit diine social la ndax wax dëgg yàlla nag ñii ñu ci yëpp xaajoo woon nañ nag jëm ci jëm ci jëm ci asaka ku leen jox dimbali nga société bi ku leen jox tamit dëgg dëgg nag yàlla dana la bàkk ci lu baax li nga xam ne nii def nga ko ndax bi tamit lu baax la aaya ji ci tegu nag mooy wallazina yuusuna rasulallahi ñooñu dafa wàcc ci benn waay ju bon doon xas yonent bi di nit ku ñaaw bind ndeysaanam naptal lañ ko daan wax euh, naptal ibnu xaaris ku karawam nga sëqoon mu jëxam bët ya xonq cor lexam ya xonq am tipp ay pitt pitt bindam ba ñaaw ba yonent dafa daan wax ne man ahabba an yanzura ila shaytaan fal yanzur ila nabtal ila nabtal ni xaaris ku bëgg a gis shaytaan rek xoolal ci nabtal mi euh, dafa daan rambaaje waxi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci munaafiqiina yi lu mu dégg ci yonent bi dem yóbbu ko foofa ñu ne ko bul def lii mu ne ay ah kay yonent benn nopp rek la lu ko nit wax gëm na ko. bu ngeen waxee rek ngeen gëñ ne waaye wallaahi nangam rek moom gëm na ko yàlla ne ah kay moo tax kilifa gu guñ fi xasee benn nopp bu mu la bu mu la naqari ndonol yonantu bi nga sallallahu alayhi wa sallam moom de benn nopp rek la ndax nit ki bu jàppee boppam nit ñi benn nopp lay doon boo jàppee ne kenn du fen nit lu ko jaral fen warta am rawatina fenu gratuit fen woo xam ne xamoo ca dara rambaaj goo xam ne xamoo ca dara soxor goo xam ne xamoo ca dara gratuit la nga jàppe sa bopp nit ñi nag su boobaa yow dangay ngay foog ñu ni wax rek dëgg rawat na lu mu gëñ ku njëkk ci sa nopp bi rek la mu wax rek yow moom la jeex na yàlla nag ne benn nopp waaye nopp la boo xam ne nag yiw dong lay dégg waaye du déglu mukk safaana bi yiw dëggal na yàlla moom nopp ba dëggal na jullit ñi kuy jullit rek la wax yonent bi gëm na ko moom jullit war a fay boppam kàddu dafa foor ci lañ lay jàppee ci lañ lay bàyyee ci lañ lay dëggalee moo tax sama borom tofal ca ne dégg nga àll ne gaa gaaye nga xam ne yuusuna danañu lor nabiyee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wa yaquluuna ñuy wax ne huwa moom de uznun benn nopp la moom de borom ak benn nopp la sama borom nag nekkul waxal ne moom de uznun nopp la boo xam ne dana déglu eh, xayran yiw làkkum ñeexal leen waaye du nopp buy déglu xay yumin dana mu gëm bi laay ci yàlla way yumin dana mu dëggal lil moomin ñel way gëm ñi laam la jalgatee wa rahmatun yërmande la li fa ñel ñi nga xam ne amanoo gëm nañ min kum ci yéen wa li fa ñi nga xam ne tamit yuusun danañu ro rasulullah yonentu yàlla bi lahum dal na seen kaw azaabun bugal alimami bër ma mëttal yaalifun ñu gëñ bi laay ci yàlla comme ñaal leen yéen ne yéen lañu ànd ak ci lépp li yurdoo ko ngir nañu gërëm loo leen te wallaahu yàlla wa rasuloo ak yonentoom bi axaqu gën a xëy an yurdoo bañ gërëm loo leen de ak topp in kaanu ndem nekk nañ mu meen di way gëm ku gëm dëgg-dëgg ngërmande yàlla ngay wut waaye nag la mu ndox xamuñ ne annahu euh, naka lay mbir tey mbir man yu xaaddi di képp koo xam ne wuutee na laax yàlla wa rasuloo ak yonantoom bi fa inna lahu aji nekk la ñeel ko naaran safara naara jahannama safaraaw jahannama xaalidan mbir mu tale ab biiram fi ak safara zalika loolu la nag alxisiw mooy gàcca alazimu gay aji màgg de yaxdaru dana moytu munaafiquna munaafiquna ye antum na sala ba wàcceef alayhim ci ñoom suratum saar tunabbiwum bu leen solo maa fi qulub nekk seen xol ya ci ak nifaaq qul waxal ne istawsaw na ngeen yëjji inna allaha naka yàlla waaye loolu xuppe la muxrijun aji feeñal la maa taxaru li ngeen di moytu de dana ko génnee de wala in saalahum wala in saaltahum wallaahi soo leen laajoon seen ak yëjji ci yow ak ci alquran la yaquluna danañ wax ne innaa naka ñun ku naa nekk nañ rek naxuudu di xuus wa nalhabu ñuy fox dañuy caaxaan dañuy foñu rek ñuy wax sax bàyyiwuñ ko xel qul wax leen ne abillaahi ndax ci yàllaam lëmm wa ayaati ak aayaam yi wa rasuuli ak yonantoom bi kuntum ngeen nekk te seen di ko yëjji laa taxtasiroo bu leen ngàntalu xat kafartum yéen daal weddi ngeen baxda imaanikum wala nga ne rek xat kafartum feeñal ngeen seen ak weddi baxda imaanikum gannaaw maanaam feeñ gannaaw gannaaw feeñal seen ak ngëm de da ngeen waxoon ne gëm ngeen du dëgg yàlla ne eni yoo fa ndéem jéggaleef na an taayifatan ci kuréel minum ci ñoom ko ku mel ni maxsiyu to asab def na mbugal taayifatun kuréel ci ñoom ndax bi àndoon naka ci saw bu naka ñoom kaanoo nekk nañ mu jëy mu ne di ay kàccoor te nag wa al munaafiquuna naafiq yu góor ya wal munaafiqaatu ak naafiq yu jigéen ya baaduum lenn ki ñoom min baadi ñu ngi tukkee ko ci ne ñoo niroo ci lépp rek yaamuru dañu digle bil munkari ci lu bon muy ak kéeféer ak mooy yàlla wa yanhaw na ñuy tere anil maarufi ci lu baax ta mooy topp yàlla ak gëm yàlla wa yàq bi wa dégg nga wa yàq bi dina ñu ngay ngëpp ay diwum seen loxo duñ dundale mukk ci wàllu yàlla nasoo bàyyi nañ laaxa yàlla fa nasa yowum yàlla tamit bàyyi leen mu saakala la mu naafiqi naka naafiq yi hum ñoom ñëpp faasiquna ay kàccoor lañ waxaada dëhal na laaxu yàlla al munaafiq naafiq yu góor yi wal munaafiqaat naafiq yu jigéen yi wal kufaara kéeféer yi dëgal na leen naara jahannama safaraaw jahannama xaalidina mbir mu ne te seen ak duel fiyaa ca safara hiya moom safara de xasbuhum ak doy la leen muy seen am mbugal wala anoon solo noonu yërmandi laahu yàlla wala hun dal na seen kaw azaabun mbugal muqiimun moo xam ne mu sax lay doon su ko defee nag yàlla wax na yéen munaafiq yi du leen nekkal li mel ni nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen kaanoo nekkoon nañ sax asal di gën a tar min comme ci yéen quwatan ci kartan wa akthara ñoo gënoon a bëri am waalan ci xalal waaw laa dan ak i doom kon na ngeen yóbbalu bi xalaaqihim ki seen cër ya ci àdduna fastamtaatum yóbbalu ngeen yéen munaafiqin yi bi xalaaqikum ki seen cër yi kamastamtaa naka la yóbbaloo la si nañu nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen bi xalaaqihim ki seen cër ya waquttum xuus ngeen di si ci neen ak di saaga yonent bi kalifi mel ni nga xam ne kalifi bi maanaa kalifi na xaadoo xuusoon nañ ñoom tamit ulaayka yooyu gaay xabitat si peekoon amaalum seen jëf ya fi duniyaa ci àdduna bi wala axira al axira ulaayka yooyu gaay hum ñoom alxaasiro ñoo ma di mooy perte nga de kon tamit ñoo la niroo ñu bon ñëpp a niroo ñu baax ñëpp a niroo yàlla nag wax yonantu bi salaa salaam ci aaya yooyu ne yonantu bi nopp ngeen benn nopp la waaye nopp la boo xam ne yiw dong lay dégg dëggal na yàlla dëggal na jullit ñi yonantu moomu yërmande la ñeexal ñi gëm ñi nga xam ne dañuy lor yonantu bi di wax loolu lu ñaaw loolu ci moom safara mooy nekk seen dëkkuwaay su ngeen dajee ñoom na dañuy gëñ ne yéen lañu ànd ak dañ leen a bëgg gërëm loo rek waaye xalaa kulli xaal sàkku ngërmande yàlla moo ëpp doole ak ngërmandeeg Seydunaa Muhammad ku ko xam-xam nga loola ndax yàlla dafay dëppale boppam yonent bi toujours man ataa Allah faqad man man ataa rasul faqad ataa Allah atiu laa wa atiu rasula man yuti rasul faqad ataa Allah fii tamit wallaahu wa rasulu ahaqu an yurduhu su ko defee nag kon loolu lépp seen jikko la te boo gisee tey aaya yooyu mu wax ko ci na yi euh, ñu ñu xées lañ xittiwoon lañ sax bëggoon a rey yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg koo buum su ko defee nag euh, tërlu ko ca xaqabatu googa ba gëléem nga sax tiit euh, yàlla dogal nag bagaasam ya xam lu ca daanu moo muhammad ibnu maslamata moo protesté leen ba mu paree yonent bi laaj ko ne ko ndax xàmmeewoo ci kenn ki ñoom mu ne ko déedéet ndax dañoo maskaw yonent bi ne ko ñoom ñëpp xam naa leen diw ak diw ak diw ak diw ak diw lay su ko defee ñooñu nag euh, ña ca mel ni max yu mu euh, ximyar yàlla jégal na ko ñi nga xam ne nag dañoo sax ci seen nifaaq ga ba safara lañ mujj dem yàlla ñu yàlla mosoo ki ñooña su ko defee nag moom euh, mujj na jébbalu rafetal lislaamam lool nekkoon na sax daan daan daan daan daan daan reeloo yonantu bi mujj xuusatut ci dara lu ñaaw lu baax rek la mujj di wax ma mujj dee mu ne nag ñii ak ña jiitu woon ñoo niroo seeni jikko ya moo tax tamit bu ëllëgee ñoom ñëpp ñooy bokk fu ñuy dem ëllëg ci safara aaya ji tofu ci muy maanaam alam yatikum naba'u lazina min qabli min qablihim xanaa ñoom ñii lii ñii ne mënuñ koo baax xanaa dañoo jël repère ci ñi nga xam na ñoo leen jiitu woon mu teexaan ñee leen doole niti luut ña niti yonentu yàlla Moussa ya dañ saxee ci lañ neexal xal ko nañ dem safara sa gaa yi buñ continuer ci lii foofu lañuy mujj moo tax mu ne alam yaatihim ndax dafa leen a dikkalut sa gaa yi continuer di la xas naba ullazina solo ña nga xam ne min qablihim jiitu woon nañ leen xaw mi nooxi nitu noox ña laa wax waa aadin ak nit niti aad ña yàlla yónnee ñoom xóot wa samuuda ak nit samuuda ya yàlla yónni woon ci ñoom saalihu wa qawmu ibrahim nit ibrahim yónent yàlla ibrahima ya wa ashaab madyana ak mbooloom madyana yàlla yónni ci ñoom suaybu wal muttafikaati ak ñun dipparte ña booy nit yónent yàlla luut ya a antum ndax ñoom atat ñoom ñoom di atat hum dikkaloo ne rasuloom seen yónentu ya bil bay naa ci la yu leer naññi bañ ko weddee yàlla xalak leen fa nekkul laahu yàlla li yaslimahum di leen waaj a waaye kay walaakin li fi nekk hum ñoom walaakin li fi kaan nekkoon yax li mun di tooñ anfusum seen bopp yàlla de waaju leen a tooñ sax ndax yàlla du tooñ du borom ak tooñ waaye ñoo toggoo seeni bakkaar ba mu juddura leen ak mbugal wal mu'minuuna way gëm ña wal mu'minuuna yu góor ña wal mu'minaat way gëm yu jigéen ña baax bi ba'duhum leen ca ñoom awliyaawu ba'din xarit leen lañ way méngoo lañ leen moo tax ya'muru dañuy diglu ma'ruuf ci lu baax wa yanhawna ñuy tere anil munkar ci lépp lu xaraam wa ñu bokk ñu ñëpp di taxawal salaata julli wayutu na ñuy joxe sa sakaata asaka wayutu yoxoon na ñuy topp laaxa yàlla war wa rasuloo ak yonantom bi ulaayka yooyu gaa yi melokaanoo melokaan yi sa yarhamuhum xal sene na yërëm laaxu yàlla ko defee ina laaxa naka yàlla asisun ko not la ci mbiram xakimun ko xereña la su ko defee nag waxaada doxal na laaxu yàlla moom ñu ne way gëm ñu góor ñi wal mu ñaata way gëm ñu jigéen ñi jannaatin ay tool tajiri yooyu dana daw min taxtihaa ci ronam al anhaaru sewnda yay ñeent xaalidina mbir wétal seen ak béel fiha ci aljana ya wa masaakina doxal na leen ay dëkkuwaay tayyibatan yu teey fii jannaati xadina mbir mu ngi nekk ci yi sax waaye nag wa ridwaanun asi ngërmande su tuuti ñu laay bàyyi ko ci yàlla akbaru moo gën a màgg loola lépp de daalika loolu nag muy mbër gën a nga huwa moom alfawsu mooy taxaafim gu màgg ga de kon nag asi ngërmande tankiir gi dafa nekk tankiiru taqlil moo tax waa aljanna yi bu leen yàlla bu yàlla dugalee aljanna yàlla ñu ko yàlla defal ñu nekk ca bànneex ya xéewal ya bëri yàlla ne waaw nu ngeen gisee mbir yi ne ko lii kay teraanga mënu koo paase mun tey ma joxe leen lu ko ëpp gan teraanga mu ne damay wàccee sama ngërmande ci yéen ngërmande goo xam ne dootuma leen sànjati mukk moo tax kon ngërmande yàlla moo ëpp doole aljana ak lu ci biir yàlla yàlla may ñu ngërmandeem te yàlla may ñu tamit yërmandeem ci barkeb sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni melokaanoo melokaan yii nag am na dëkk dana leen dëkk dëkkwaay yu baax dana leen yërëm way gëm ñu góor ñi ñu jigéen ñi kon foofa dafa bëgg na kon lu war góor rek war na jigéen góor ak jigéen ñoo xam na parité ñoo tolloo ci warteef tolloo ci yel yelleef ñoo tolloo ci wareef ak ci yelleef lu waaye lu yàlla santaane ci ñu war a def du wax ne góor lii jigéen lii julli moom amul góor ñaari rakka jigéen ñen benn rakka déedéet ñëpp ay bokk julli rek bokk joxe asaka weeru koor xamul ñaar fukki fan ak juróomu jigéen euh, fanweeri fan góor déer ñëppay toll foofu la parité bi nekk waaye nag bu buñ demee bay fay tamit yàlla du wax damay fay lii góor mu mat jigéen genn wàll déedéet kon ñoo tolloo ci warteef tolloo tamit ci yelleef waaye xanaa ku yàlla na benn wala zakaru kal unsa yàlla wax na ko ndax góor mooy première matière moom la yàlla njëkk a bind doora nag jigéen nekk deuxième matière moo tax moom mi première matière moo xattal nubuwatu moo xattal xutbaaniyatu jigéen muy deuxième matière ñaar yooyu xattanu ci dara li nekk première matière tax ku ko rey moom góor téeméeri gëléem jigéen mi deuxième matière juróom fukki gëléem duñ benn kon nañ bàyyi caaxaan yi tabuwaay neen parité man a xanaa karité nga bëgg a wax parité kay pour naa waxate ci góor ak jigéen duñ benn di jigéen bu ñàkkee fayda ba tolloo góor fay perte di yow kat yow euh, góor mooy sang waaye jigéen mooy chef chef mooy koo xam ne fay ñëw fekk lépp pare dañ laa tabaxal kër gi méebalal la ko jëndal la télé wutal la oto yow da nga ñëw jëriñoo rek loolu dara waru la ca wutal la dépense la la la nga war a jël xariñoo lépp soo ñëwee bëgg a tolloo góor yi takkaay di ko wuti ngay sonn ngay toroxal sa bopp bu leen ko nangu bu ngeen tolloo ngeen perte de yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kufaara wal munaafiqiina yàllaa ngi wax ak yonent bi nañ jihaat ak xéeféer yi ñu bon lañ rawatina nag ña bëggoon a rey yonantu bi laylatal aqaba ba muy dellu si bàyyi ko Tabuk fukki nit lañu woon mu teg Xamaar ibnu Yaasir dóor xarxaramoo gërëm ya ca kanam rek gërëm ya daw départ fekk ñoom ñoo leen réeral ñoo leen ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo tiitloo gërëm yi ba bagaas yonantu yàlla Muhammad ya sallallahu alayhi wa am yu ca wadd mu laaj ko ndax xam nga ca kenn mu ne ko déeréet yonent bi ne ko ñëpp laa xam ba mu xëyee nag ba mu dem ñibbi la leen xoolu mu dëgal ko ne ko wallaahi naruñu woon loola fekk yàlla xamal na ko yonent bi rappeleel ko liste bi kan kan lañ ba mu jeex tàkk moo tax sama borom ne yaa ayuhan nabi eh, yow yonentoob yàlla bi jaahidi na nga jihaat ak kufaara xéeféer yi ci jaasi wal munaafiqiina ak naafiq yi waxulus na nga xiisal jihaad ga xàllim ci ñoom wa waawum seen tàppuwaay jahannama mooy safara de wa bi sa bon na almasiru mujj waay ba te mooy safara yaxalifuuna danañu gëñ ñoom mbir moom danañu gëñ ñooy bi billaay ci yàlla ne maa xaaloo waxuñu loolu mooy saaga xuñ yonantu bi te yonantu yëg na ne saaga nañ ko yàlla ne wala xadd xaaloo wallaay sa dëgg-dëgg wax nañ kalimatal kufri baatab xéeféer wa kafaru feeñal nañ ak weddi baada islaamihim gannaaw feeñal seen ak ngëm su ko defee waxam moo xittewoon nañ bi maa lam yanaaru ci loo xam ne mënuñ koo xam te ma doon rey yonantu bi manta ne koo xam ne wallaahu yaxsimuka min naas la ko yàlla foo koy rayee wa maa naqamoo weddi wuñ illaa an agnaahum lu loo xam ne xoomal na laa yaa war sul ak yonantu bi fat li ci ngëneelam li leen yàlla xoomalal ci màng ko moo tax ñuy fuuy di tëb di dal fa in yatuubu bu ñu tuuboo nag ba ñu tuubee bàyyi nifaax ga gëm yàlla yàqu dana nekk xayran diiw lahum ñeexal leen way ya tawalaw buñ dëddoo walis gëm yoo azibum dana mbugal leen laahu yàlla azaban mbugal alima may bër mag méttal fi dunya ci àdduna wala axirati àllaaxira wa maa lahum an lan moo leen ñeexal fil ardi wa maa lu du leen ñeexal fi ardi suuf min waliin ci kenn ku leen wattu wala nasira kenn ku leen dimbale xamut ñu dee dem safara rek loolu rek lañ mérito yonentu mi nga xam ne weñ bala yeeg malaaka yeeg njanaaw yeeg jënn yaa ngi ko sopp yow ngay nit loolu nag sens la ci yow xamoo dara dara dara loo njukkalee yàlla bëgg rey ab yonantoom nga xanaa xamuñ ne yonantu boo dégg ñu ne rey ko yàlla da koo déggalul xeex waaye yàlla yonantu lu mu digal xeex moo lay xeexle waaye yonantu yi ñu rey yëpp déggaluñ ko leen xeex koo xam ne nag moo taxoon yàlla binduñ mbindeef yi di yonantoo yonantu yi yàlla garante ko walaaw yàq si ma ko mën a yow ngay naa si bëgg koo rey fu muy mujj kon da ngaa bëgg a weddi wax yàlla mën ta nekk aaya ji tofu ci aaya ju daw yaram la waaye ne xalal nit ñi xir nañ ci waaye wallaahi jarut ko léegi-léegi nit ki topp xalal ba mu xëy dugal ko safara amoon benn waaye bu ñu tuddee sax la bëtu njël bennam rafetoon lool mu bëgg yàlla fonk julli yëpp di ko julli yee ca jàkkaay yonentu ba yonentu bi ràññee ko ñu ko daan tuddee sax la bëtu mu joon nañ sax di ko dàkkantalee xamaamul masjid pitaxam jàkka ji bëgg jàkka ba mel ni pitax ya bis jot nag mu bokk sa ñuy gën a teel a ñëw ca jàkka ja yonentu bi ne ko yow de gis naa la ngay teel a julli si lool lu ko waral mu ne ko ñàkk rek benn yére laa xam may teel a ñëw su ma julli rek gaaw dem summi ko jox ko sama jabar mu sol ko ñaananu ma am xaral yonent bi ne ko tee xool ci man su ma neexoon wurus yeeg doj yeeg montagne soppeeku wurus ñaanal ma waaye ñaan naa yàlla dundal ma may miskin mu ray ma may miskin dundab taalibi dafa neex dafa sakkan mu ne ko daal man xam naa ne su ma yàlla dimbalee ba ma am xalal ci laay dàq jaamu yàlla mu ñëw yonantu bi ne ko demal nga toog ta nga muñ sant yàlla la yàlla defal ndax lu tuuti lu ñuy sant moo gën lu bari lu lay bewloo mu ne déedéet dimbale ma ñaanal ma rek wallaay soo ma ñaanalee su may yàlla joxee xalal danaa ci sant yàlla danaa def lu baax yonantu bi nag ne allahuma aati saalabatal maala yow yàlla yàlla nga jox saalabata maal xalal xalal lam je mujj di bëri ay gàtt la xamee woon ñuy jurante di bari ba mel ni sax yi ci bëri mu dem a dem ba ci kanam war a xat ci moom mu topp gàtt ya léegi nag kat mënta julli seeti fajar ndax dafay xewi mënta julli beeki timis ak gee ndax dafay rattaka xeew léegi yonent bi laaj ko ñu ne ah ñu ngi ci jàmm de ci ak suñu pas-pas xalal ji rekk lañ topp dem dem ba ci kanam mënta ñëwati tusubaar ak tàkkusaan day sàmmi ma nga topp xalal ja dem dem ba ci kanam xajuma dong lay ñëw mu jigi gàtt ya bëri xajatul war a xàll ba mu bëgg tukki na madina fooree dëkk fa ni mu fooree xàll ji tax mu génn dëkk ba xajuma lay ñëw léeg-léeg sax mu tëbal ñaari xajuma léeg-léeg ñett léeg-léeg ñeent dama dem nag ba asaka wàccee ki ñetteelu at ca gàddaay ga yonent bi yónni ne nañ dem ci moom wax ko mu joxe asaka ji mu calculé gàtt mu war a joxe mu bëri lool mu ne lii daal impôt rek la man duma ko joxe ah loolu métti yonent bi lool mu mujj ñëw bëgg naan arrière yonent bi ne ko yàlla wax bu ma ko jël soxlatul sa xalal yonent bi génn àdduna mu ñëw ci Aboubacar Aboubacar ne ko xalal ju yàlla gedd yonentu gedd ko soxluwuma ko jamono Omar ibnu Xataab mu ñëwati Omar ne ko xalal ju Aboubacar gedd yonentu gedd ko man Omar soxlaatuma ko dàq ko ca la nekk na bu mujj mu génn àdduna ñu ne ci xilaafa ak Seydina Ousmane ci la génn àdduna kon nag jaayanteeg yàlla ne bu ma yàlla joxee xalal danaa ko topp yàlla jox la xalal nga jàmbu yàlla fii ngay mujj dem safara xalal moom mbugal la ci sa àdduna bi mbugal la ëllëg ci àllaaxira boo ci defut la ca war soo xasee yor xalal mbugal la foo toll dootoo sa xel dootul dalati foo toll yaa ngi jumti yumti yumti foo toll yaa ngi gëstu yaa ngi topp mais yi ñuy xam xalal sax ci àll bi nelawatuñ guddi waxuma la bëccëg yaa ngi garde yaa ngi gëstu yaa ngi réglé jamaa maalan a adadoo ci ngay nekk topp magasin ya topp gétt ya topp maanaam alal jaag bor ya ca ngay nekk coono booba ba mu moytuwut sax sa sa diine dootul rafetati nga nekk ca ba dee tamit nag ñu jël alal ja lakkee la ko nga dem safara du ko jar moo tax kenn ku ne fi nga bëgg a toll fi la yàlla toll moo ko gën bu la yàlla defee nga ñàkk gërëm ko. su ko defee kon nag ku ñàkk te muñ mën naa dem ba ëpp doole koo xamee ne nii dafa am xalal tey sant boo demee boroom xam-xam yi coow nañ ci diggante as-saabiru ak saakir ku ci ëpp doole coow lu baree baree bëree bëri la ci boroom xam-xam yaa wax waaye alaa kulli haal ñoom ñaar ñëpp nag baax nañ moo tax genn góor dafa amoon jabar jabar ja rafet lool moom mu ñaaw lool benn bis jabar ja xool ko rek tàpp ko daanu mbaa jàmm mu ne ko ay jàmm la maa xam ne ñu ñaan ñëpp aljana lañ jëm ni nga ni ma rafetee ni nga ñaawee te fasuma yéene génn ci sëy bi yaa may denc de mbaa ma denc la xam nga ne kon man mii ci muñ laay dee yow mii ni ma rafetee nga ñaawee xam nga ne du du sa fase ma xam nga ne ci sant yàlla ngay dee kuy sant ak kuy muñ yëpp yàlla defal na leen aljana jigéen nga ko kon ku ñor la kon nag sax ba toog ngoog ak ci suñu réew mi baax di bari nañ fi de ñu yore melaw Saalaba dem ci sëriñ bi ñaanal ma sëñ bi billaahi su ma yàlla joxee alal ma gën a la oto su ma yàlla joxee alal ma tabaxal la daara su ma yàlla joxee alal ma tabaxal la juma yàlla sedd na ko jox ko alal sondeel bu jëm ci juma ga sax mënu koo jënd bu bu keroog ba mu amee alal sax la la la ñàkk taalibeem nga far taalibe bu bari ñi ci ëpp mooy ñi ñàkk rek ak ñi ñaareel li ci mbokk yi. buñ xamee duñ toppe bu ñu xamee duñ toppe waaw xam toppe boole ko xam toppe ku baax dëgg ko man waaye boo commencé xam mbaa nga commencé xam dara rek commencé nga fu mel ni di diir mbagg sa sëriñ yi rawatuñ ma ëppaleetuñ ma oto bi mu dawal sama oto bi gën a du ma koy toppee te xam nga loolu tamit musiba la xalal baaxut moom lañ bëgg de waaye day toroxal nit xalal daal ju baax a ca baax te nekk ci loxol ku baax ni'mal maalu saalix fii rajuli saalix bu loolu amul nag musiba la te loolu yombut moo tax yàlla ne wa minhum am na ca munaafiquuna ya wa minhum yi ci ñoom bëri na de man koo xam ne xaaxa dëkk ko rante ne laaxa yàlla ne la in ataana wallaay soo xamee na jox nañu moom yàlla min fadli ci sa lana la na danañu joxe asaka na sadaqan na danañu saraxe wala naku nan na walaay danañu nekk mina saalihiina bokk ci ñu baax ña de di def lu baax rek yàlla ne falammaa aataahum ba nga xam ne jox na leen moom yàlla min fadlihi ca wërsëgam baxiloo nay nañ bii ca loola de wa tawallaw du duñu walis topp yàlla wahum fekk mbir moomu ñoom muriduna woy du mooyu lañ fa aqabahum mu jël na leen moom yàlla mu jël na leen maanaam nifaaqan ak nifaaq goo xam ne dafa sax fi qulubihim seen xol ya ilaa yawmi yalqawnahu ba ba ñu dajeeg yàlla ñu nekk neen nifaax ba dee ca bi ma axlafoo ci li nga xam ne sooyal nañ ko laax yàlla maa waxadoo ci li nga xam ne ko moom wóolu maa kaanoo ak sabab loo xam nekkoon nañ yekk si bu na di ko weddi de moo tax yàlla saxal nifaax ki ñoom bañ far dee ca dem safara yàlla ne alam yaalamu xanaa xamuñ ne ana laa naka yàlla yaalamu xam na sirrahum la ñu nëbbu seen bakkan wa najwaahum ak la ñuy feeñal ci yàlla xam na ko wa ana laa naka yàlla xamaa kon lu fàddu la de lépp xam na ko su ko defee kon nag lii la yàlla wax ci saxla bëtu saxla ba yi nag bari nañ fi du jeex defar ma jo ñaanal ma jaayante naag yàlla ci lii yàlla jaay la jox la ko nga jàmbu yàlla du jeex su ko defee nag aaya ji ci tegu fa qaala al munaafiquuna yonentu bi sallallahu alayhi bi nga xamee ne aayab sadaqatu dafa wàcc muy sarax genn góor a ñëw ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama saraxe alal ju bëri munaafiqun ay day ngistal rek keneen ñëw joxe benn saa tàndarma mu ne ay kii de saraxam bi yàlla xamul ci soxla kon kii nooy def na munaafiqee mu tamu ci moom boo ne mu ne laa nga laa mu ne ne ñuul na mu ne dafa weex nga ne dafa weex mu dafa ñuul am na ñoo xam ne kenn mënta wax ak ñoom ñàkka a ak ñoom mooy wax ak ñoom moo tax yàlla ne am na sax ñu nekk ki joxe woon alal ju bari jë Aboubacar Siddiq la ñu ne Abdourahman ibnu Awf la joxe ñeenti téeméeri euh, maanaam ñeenti junne dërëm fekk booba ñett juróom-ñett junne la xamee mu joxe genn wàll ga dese genn wàll ga yonent ne ko loo bàyyee sa njaboot mu ne ko genn wàll ga mu ne ko yàlla si yàlla defal barke ci li nga joxe ak ci li nga téye yàlla barkeel lam ja ci ku bari woon xalal la euh, dégg nga ba gis nga sax euh, am na ci soxna am soo xam ne gannaaw ba mu génnee xalal ruboxam bi mu am ci moom rek wala sumun ba nekk na juróom-ñetti té fukki junne ci ay ay ay dinaar mu mën a goreel lu mat fanweeri junne ci ay jaam dénkaane lu mat juróom fukki junne dinaar ngir bëri xalal moo tax kon ku jël sa xalal di ko def ci yoonu yàlla da ngay yokk la rek doo wàññeeku mukk ñaan la gu fi yonantu bi bàyyi waaye jal ko jël ko yombut de moo tax yàlla ne allazina ña nga xam ne yelmisuuna danañu ayibal mutawiina way coobarewu ña ci joxe seen xalal minal mu'minin ci way gëm ña fi sadaqaati ci sarax ya wallazina ña nga xam ne laa yajiduuna amuñ illaa juhdahum lu dul seen kartan te mooy ki joxe lu tuuti loolu fa yasxaruuna ñu yéen ree minum ca ñoom ñooña de saxira sànj na laahu yàlla minum ca ñoom yàlla delloo na leen seen seen reeya de wala hum dal na seen kaw asaabun mbugal alima may bër moog méttital bon nañ bon goo xam ne istaxfir moo xam jéggalu nga lee lahum ñaan leen aw laa tastaxfir moo xam jéggalu leen lahum ñaan leen li wér te daal in tastaxfir boo jéggalu lahum ñeel leen sab'iina maratan juróom-ñaar fukki yoon falan yaxfir du jéggal mukk laahu yàlla lahum ñeel leen de yonent bi ne su ma wóoroon ne su ma dollee juróom-ñaar fukk ñu jéggal leen ma def ko yàlla ne zaalika loolu bi anum sababu naka ñoom kafaroo dañoo weddi bi laay ci yàlla wa rasuuli ak yonentoom bi wallaahu yàlla laa yahdi du gindi xawma nit ña faasiq la ñoo xam ne dañoo génn topp nekk ay kàccoor de fariha bég na al muxallafuuna aaya joojoo timit ci ñi nga xam ne bi yonent bi demee tabuuk ñoo fa desoon nangu ñu woon a dem léegi nag des kañ fa des ñu kontaan ci yàlla nag wàcce aay ji dal seen kaw bu ngeen waxee ñu ne dafa mbóoyoo safara dafa mbóoyoo yàlla ne leen safaraaw jahannama moo gën a mbóoyoo te ku puusut ci mbóoyoo gi dem ànd ak yonantu bi ci tàngoor bi da nga dugg ko safara woowa moo tax sama borom wax ne fariha bég na fariha bég na almuxallafuuna ñu ñu wutal ña waris tabuuk bi maqaadim seen ak jékki xilaafa rasulillahi gannaaw yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa karihu sib nañ an yu jaay da wala si ñuy jihaad bi am wàllin seen alwan seen bakkan fii sabilillahi ci diina yàlla ji wa ñuy wax seen morom ya ne laa tanfiroo bu leen génn jëm ci jihaad fil ci tàngoor wi qul wax leen yow yonent bi ne naaru jahannama safaraaw jahannama asadu moo gën a tar xaran ci tàngooru tabuuk law kaanu dañ ne ko yafqahuuna di ko xam de kon dañ fi bàyyi tàngoor wi dem ci tàngoor wale waaye nag buñ ko xamoon fal yadhakoo danañu ree xalilan lu néew wal yëpp koo ñuy jooy kasiran lu bëri fi laaxar ci àllaaxira maanaam kasiran lu bari jasaa muy fay ak fay bi maa kaan soobu lañ nekk yegg si woon di ko fàggu de fay léegi nag loolu koy def. dafa am dafa ko dafa ko dëgg ëmb ci siyaaqab amar waaye fekk xabar la mu ne ña ngay ree rek fal yadhaku ña ngay ree waaye doo wax na nañ nañ ree ña ree lu néew ci àdduna di jooy ëllëg lu baree bari ci àllaaxira waaye nag euh, xabar la waaye du maanaam insha ci mbindin mi mbindu ni insha la waaye da koy firi firim xabar xabar sëñ daara Cheikh Modou mooy lépp loo xam ne mën nga caa déggee wax nga dëgg mbaa fen nga rek loolu mooy xabar insha nag mooy loo xam ne mënuñ caa déggee wax nga dëgg mbaa fen ci balaaxa moo tax mu ne fal yadhaku danañu ree ci àdduna xalilan lu néew wala yëpp ku danañu jooy ci àllaaxira kasiran lu bëri jasaan muy fay ak fay gu dëppoog maakaan wa sax ba la ñàkk yàq sama ko fàggu de fa in rajaaka bu la dellu see laahu yàlla nga bàyyi koo tabook ilaa taayifati nga jëm ci kuréel minum ca ñoom ñu xuute woon fastaasanu ko ñu diwsi woon la lil xuroo gi jëm ci génn jëm ci beneen xare ñoom ñu ñëw diisoo na ñoo ba nga xam dañoo beneen xare foqul wax leen ne leen lan taxu joo dootu leen génn mukk maa ngi ànd ak man abadan faw walan loo dootu leen xeex ak maa ngi ànd ak man addu wan noon innakum naka yéen rajitum gërëm ngeen bil quudi ci jékki aw wala mar jël benn yoon wa ca tabook kon nag fa qoodoo jékki leen rek maal xaalifiina ànd ak way wutee ñu ñu xarewut muy jigéen ñaa xale yaag ñu lompañ ña su ko defee nag lii la yàlla wax ñu moo tax sa xare bi mooy dari ñeeru xare yonantu bam koo demee ba la gëj a dem ci xare mu ne boo ñibbee nag ñu ñëw di la diisoo ti bëgg a dem ci beneen xare ngir li ma leen wax dal ko seen kaw weer leen fomm leen ba tey rek ndax ñuy ñàkk dem moo gën ci yow moo gën ci sa saxaba yi Eh, su ko defee ne yéen a gërëmoon toog ci njëlbeenu yoon wa continué leen ci la ngeen nekkoon rek ngeen ànd ak jigéen ñi xale yi ca toogaay ba bu leen dem seen wala tusalli ala ahadin saar wi daanaka mbon ak munaafiqiin yi lay wax rek muy yahuud yi gis nga ayibal na leen ci bëgg xalal ayibal na leen ci trian lekk xalalu jàmbur ayibal na leen ci xutt muy ragal ay ayibal na leen ci mën a fen ak jaxase ayibal na leen ci mën a rambaaje ayibal na leen ci xiir ci dund ayibal na leen tamit maanaam ci mën a saboté kuñ gis maanaam muy def lu baax ñun day ngistal di wax wax ju bon ca moom ayibal na leen tamit ci jikko yu bëree bëree ba xam ne tey jullit ñu bëri sàcc nañ jikko yooyu tey ci ñoom aaya jii nag tegu ci wala tusalli maanaam ibnu ubay moo feebaroon mooy nag mooy kilifaak naafiq yépp mooy ubay ibnu salul abdullah ibnu ubay ibnu salul moo doon sangab waa xasraj moom nag doomam ku baax la moom doomam ñoo bokk benn tur la maam Khalifa wax bëggoon yàlla lool bëgg yonantu bi bi mu feebaree nag ba wóolu ne day dee mu yónni doomam ne ko demal ci yonantu bi na ma may mbubbam mu may sol te su ma dee maa ngi ñaan mu jullee ma ba mu ñëwee yonantu bi jël mbubbam jox ko saxaaba yi ñëw ne ko kii di am munaafiq bu bon xanaa xamoo li muy wax ci yow moo wax lii ak lii ak lii nga jël sa mbubb mi di ko ko jox yonent bi ne juwaat raay ko mu yóbbu ko dama koo koo fayee keroog bañ jàppee sama bàyyi tëx ba Abbas ca mu bokk ca ñun jàpp jar-jar ca Badar moo yëkkati woon mbubbam jox ko lu rek laa koy faye doom ja mbubb mu xool ko ne ko ne ko man mbubb mi ma bëgg mooy mu nekk ci yaramam mi sol mi mu jiital mu tàpp ci yaramam moom laa bëgg doom ji ñëw wax ko yonent bi yonent bi summi mbub mam soroon billaahi yonentoo baax ñu ko demal nga joxal ma ko ko saaba yi gën dal de ci kawam sa yaram wu sell wu tedd wi mbub mi jonjoog moom nga koy jox mu naafiq bu bon bi yonent bi ne mbub mbub mii ma jox ko mën naa jur ñi ci gannaawam ñëpp tub dugg ci diina ji te booba nag lu mat junnee munaafiqiina yi ñu ngi ci gannaawam lu mu wax lañ wax di ko déggal fekk yonent lam gis yoon gisuñu ko léegi ñooñu di munaafiqoon yi gis mu sol mbubbam yonent bi te xàmmee nañ ko mu dee yonent bi taxaw di ko jullee Omar ibnu Xataab ne ko doo ko fi jullee mu ne ko Omar man la yàlla yónni ci nit ñi man la yàlla yónni ci yéen mu ne ko kii munaafiq piir la moo wax lii moo jëf lii ndax léeg-léeg njaboot xam ci biti lu kilifaam xamut lu yow kilifa da ngay nekk ci biir njaboot gi nekk la ci biti Omar wax. mu ne ko doo ko jullee mu taxaw bëgg koo jullee Omar ñoo taxaw ca kanamam Omar nee na njàmbaar gi ma wane man ba léegi su ma ko xalaatee rek tiit mu jullee ko ba mu ko jullee jël mbubbam ma jox ko ñëpp xàmmee ko ñu sàngee ko ko mu ne ko maa ngi koy xamal ne du ko jariñ dara dara dara ndax lii lépp li muy baax baax comme moom baaxul tamit du ko jariñ dara comme nga sol mbubbam yonentu bi ñu sàngee la ko nga dem safara yonentu jullee nga dem safara xam ne kon mbir mi yéeme na lu mu fi nekk yaa koy liggéey. faw sa xol bi laab nga sellal ko ci gëm yàlla lu cay tollee ko doo ca mën tollee dollee kooti léegi nag mu wax ko lii munaafiquuna ya nekkoon ca gannaawam di ko déglu yëpp keroog ba ko yonent bi jullee keroog lañ tuub ñoom ñëpp yonent bi ne mbub mi ma ko doon jox lii laa ci jubli woon jullee gi ma ko doon jullee lii laa ci jubli woon pour wan ñii ne ko mu leen doon wax gëmul ca dara bu waxee yéen ca kaw wax ju bon gànleel bi ku ñëw ca gannaaw wax ak man wax ju suufe ci lañ ñoom ñëpp xeewu ne ndeke kii dafa ñu doon jaay rek yonentu mooy waaja tey ashadu an laa ilaaha illallaah wa annaka rasulullaahi ñoom ñëpp ñu ne ko nashadu naka rasulullaahi kon tamit aaya ji yóbbu na képp ko bokkul ak diine lu ngeen xaritoo li ngeen bokk bokk bu xasee dee fañ koy waajalee bu fa dem buñ koy denc fañ koy denc tamit bu fa dem wala taqum ala qabri mooy fiñ koy denc wala tusalli ala ahadin mooy fañ koy waajalee sa yoon nekkul ci ba ngeen di dund nag mën ngeen a maslaa ci li ngeen bokk ci àdduna bu la lebee lebal ko bu feebaree seeti ko bu amee jafe-jafe euh, nga nga nga jaal ko bu amee bànneex nga ndokkeel ko waaye bu dee xasee am kenn ku nañ la bàyyi sa ñoon diine diine kenn du ci maslaa xalali yàlla la léegi nag jullit ñu bari ba ci ay kilifa sax leen day dee rek ñëpp dem ca bu diine yàlla ne wala tusalli bul jullee ala ci kenn minum sa ñoom maata koog dee na abadan faw bu ko defati wala taqum bul taxaw ala xabri yi ci xabroom ba bu ko defati abadan faw innahum naka ñoom kafaroo wedd nañ billaay ci yàlla wa rasuul yi ak yonentom bi wa maatoo dee nañ fekk wahum ñoom faasiquuna ay xéeféer lañ wala toxjib ko bu mu la xéemuloo am waalum seen xalal ya wa awlaadum ak seen doom ya inna maa yurida dafa namu laaxu yàlla ay yuazibu mu mbugal leen fi duniyaa ci àdduna wa tashaqa génn anfusahum seen bakkan fekk waxu mbir moomu ñoom kaafiruuna ay xéeféer lañ way weddi lañ wa iza unsilat leen wàcceef na suratun saar ci alquran du ko defee nag saar waxande wax an eey aminoo gëm leen billaay ci yàlla wa jaahidoo ngeen jihaad maa rasuuli ànd ak yonentu yàlla bi istasanaka diisu la ulu tawli borom koom-koom ya minum te ñoom wa qaaloo ñu ne sar naa bañu rek nakku ñu nekk maal qaayidina ànd ak woy jékki ñi yàlla ne raddoo gërëm nañ bi an yakoonu ñu nekk maal xawaalifi ànd ak ñu wuute ña te mooy jigéen ñi xam ñi xam duñ dem ak xale yeeg ñu xam gànta ña yàlla ne wattu bi xal lankaanjeef na alaa qulubi seen xol ya fa hum ñoom daal laa yafqoon duñ li fi nekk arasoo la yonentu gens yi nga xam ne amanoo gëm nañ maa ànd ak moom wa jaahadoo jihaad nañ bi am waalim seen alal wa anfusum ak seen bopp wulaayka yooye gaay lahum ñeel neen xayraatu yiwi hadduna ak yoo xam laaxiraa yu bëri wulaayka yooye gaay hum ñoom al muflihuuna ñoom di way texeña aada xalul na laahu yàlla hum ñeel leen jannaatin ay tool tajri yooyu dana daw min taxtihaa ca ronam al anhaaru sew nda yey ñeent waaye ca xaamim la koy firijee xaalidina jël seen ak déel fiyaa ci aljana zalika loolu al fawsu mooy texe al azim kon loolu leer na wa jaa al muadiruuna ji min al arab li yusana lahum bi yonent bi ñëwee nag ndeysaanam moom lay wax si nii di ci xëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne dañoo ngànt lu joxoon nag daal di ñëw kenn ku ci nekk di wane sa ngànt man kay yow la ànd ak li ma teree wan a dem lii lii rek la mooy li xew léegi rek léegi li ab sëriñ woote jaara yow fu ne mbir ya passé gisul la ca nga ñëw di joxe sa ngànt yu kenn xamut yàlla nag ne ñi nga xam ne dañooy ngàntalu te xamuñ ngànta laa wax waaye ñuy ngàntalu te fekk dañoo am ngànta ndax dañoo feebar ñii dañoo nekk ay handicapé ñii dañoo seen cër yaa wàññeeku ñii dañoo mage ñii dañoo gumba ñooñu ñoom xamuñ benn bàkkaar ki ñàkk di ñàkk dem ànd ak yow ca xas wut Tabuuk amuñ ci benn bàkkaar moo tax mu ne wa dikk na al muaddiruuna way ngàntalu ña minal aaraabi ci laala moom aaraab ya la muy araab ya dëkkee ca kaw ga la ngir na digal lahum ñaan na digal yëf lahum ñaan leen wa qaada jékkee li nga xam ne kan sa boobu dinañ laax yàlla war a sooloo ak yonentoom bi yàlla ne sa yusibu xal si naa jot li nga xam ne kafaroo wéet dinañ minhum ca ñoom azaabun mbugal alimam mi bërëma méttital waaye laysa ala duafaay dee di way way lompañ ña ñu mel ni ay mag wala alal marda du caateen way feebar ña ñu mel ni dañoo gumba wala ñu handicapé wala àll si ñi nga xam ne laa jëndoon amuñ maa yunfiquna lu ñu dundale ci jihaad ja xam ñi ma wax de xamuñ ci ñoom benn xarajun bàkkaar xamuñ ci benn bàkkaar ida nasawoo ndem laayi biir nañ laay ñaal yàlla wa rasuli ak yonantum bi su fekkee ne seen jékki googa maanaam ànd nañoo yàlla ci xol maalal muxsinina déet di way wa rafetal ña min sabilin ci wenn yoon wuy jaar pour mbugal leen wallahu yàlla xafurun jéggalaa koon la ñaan leen rahimun yërëmaa koon la wala ala lazina lu caaken mi nga xam ne tamit ida ma ataw ko bañ la dikkalee li taxmilahum ngir nga xen leen maanaam utal leen suuf pour ñu dem ànd ak yow qulta nga wax ne laa ajidu awma maa ahmilukum fu ma leen xen xale yi ci moom man de awma ko tawallaw ñu dëddu ñu ko defee nag bañ boy wan watee rek du dëddu wa ayunuhum mbir moom seen bët ya tafidu ma ngay yol mi na dami ci ronqañ xasanan ngir ak jàq allah jidoo ngir liñ amut maa yunfiquna lu ñu dundale ca yoon wa ñuy timi xamuñ benn bàkkaar yoo xam ne bañ ñëwee tàggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jug nañ pour bëgg ànd ak yow war a dem xeexi ci li nga woote yàlla dogal nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waruwaay yu ma leen mën a yéegal de awma ko ànd ak ñoom tamit amuñu dara luñ mën a yóbbal yóbboo seen bopp te ko luñ mën a yóbbu moom mooy banu maqaran ñett mbokk lañ xoon muy màqal ak suwaydu ak noomaan ñoom lañ daan wax wa qiilahum ashaabu abi musa al ashari yu ñooy àndoor abi musa al fekk nag ndeysaanam ñëw nañ ñi gëm ne ñoom de xamuñ luñ leen xenal ñëwal yow ci moom ne ko xamuñ ko ñëw ci yonent bi ci benn gëléem ca njafeel ya mu yónnee ko pour ñu xen leen ca ñu ne ah mënuñ cee ñu laajee yonent bi su ko defee tamit nag moom kat mu gëñ ne maanaam euh, euh, mënuñoo amuñ luñ leen yóbboo mun ne yooyu ñoom amuñ ci benn bàkkaar laa ajidu maa ahmilukum alayhi tawallaw su ko defee kon nag. koo xam ne mënoo yóbbu sa bopp tax amuñ luñ la yóbboo kay amoo ci benn bàkkaar taxan nag buñ la fommee tamit yaa ngay jooy mais man dem rek laa bëggoon ko kay wax dëgg yàlla xan na nga ak yàlla xan na nga ak yonent bi waaye ki bon nag mooy koo xam ne sax yàkkamti na nga jox ko ngànta ba mu toog dafa laa tàggu ci làmmeñ rek mais xol ba moom fomm rek la bëgg kooku taxul ñuy wax kooku duwul muxsin waaye ki rafetal nag maa alal muxsinina min sabil wallahu xafurun rahim kon nag ñii ñooy bi yonent bi ñib si nga defoon délégation ñëw ca moom ak li ci haju mu mel ni kon loolu la ci doon wax